je suis fière d'avoir servi mon pays. mbégte ak contentement la kii di Annette Seck wane ginnaaw bi nga xamee ne jàpp na ne matal na wàllam ci liggéey bi ñeel ministère bi la. comme en atteste d'ailleurs comme ni ko rapport annuel de performance atum 2023 bu ministère bi biralee di rapport boo xam ne ni fësal nañ ko ci weeru mars atum 2024 man mii maa bind préface bi mooy li ma la jébbal léegi. d'écrire la préface et que je viens de vous offrir. kii di ministre bu bees bi di rafetlu loolee te itam di fàttali dayoo bi nga xam ne ministère am bi am na ko ci gis-gis bi nga xam ne njiitu réew mi fësal na ko. à notre humble avis. bi ci boppam moo yaatu waaye tamit day duggante ndax boo jëlee exemple ci euh, poñ bu njëkk bi bi wax ci wàllum jeunesse ak wàllum ñàng meeg ñàngale mi wàllum tàggatu ak wàllum xëy ndaw ñi ñun ñëpp lay laal di laal. nga yokk ci nag xeex li nga xam ne mooy njëglu cher lii loole tamit ñun la ñeel nous sommes interpellés. loolee waral muy ñaax ay collaborateurs am ñu gën a xoolaat seen taxawaay takk ndigg yi bu baax ngir ñu mën a def li ñuy xaar ci ñoom. le changement qui nous coppite yi nga xam rek moo ñuy xaar moo ñu indi saafara saafara ci nga xam ne kat moom la ñëpp di xaar te loolee day tax rek ñu xoolaat ci ci nekk ak li nga xam ne lii illa ji waaye tamit fexe ba lii nga xam ne tamit mooy wàllum santiment ci wàllum austérité wala sax ci wàllum coppite ñu gën ñoo ñeel la conduite changement naka noonu ba Diémé di xamle ne responsabilité bi bu mag la ndax nag ministère bi dañ ci yokk portefeuille lépp lu jëm ci wàllum xëy loole nag di gën a taral seen liggéey ndax yaakaar bi nga xam ne askan wi am nañ ko ci ñoom